bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat ak jàmm ci di Leader TV di wax ne bu leen fàtte abonné gannaaw loolu ñu mag yéen ci revue de presse revue de presse nag ñu ngi fiy njëkk stade stade mi ngi fësal l'international bi di Sadio Mané ak coach boobee di Aliou Cissé gannaaw mi nga xam ne ñoo ngi leen di xaar ci cérémonie Award boobee di am nga xam ne ñu yor comité football africain ñoo koy organiser foofee sa Maroc si alxames bii ñu jëm ba tey journal mi ngi ñuy xamal ne kii di Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy ñoom du ñu ñëw ba tey na torop si jël ballon d'or africain boobu ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk ay kàddu Kalidou Koulibaly mii muy xamle naan bi ma Chelsea woowee hésité wu ma Chelsea daf ma woo rek ma jubal si Chelsea ba tey journal bi mi ngi ñuy xamal ay kàddu Kalidou Koulibaly muy xamle naan Premier League bu foofee sa Angleterre dafa nekk championnat bi nga xam ne championnat yu dàq si la bokk am na physique am na tactique am na na rapidité ba tey bi ñoo ngi fay fekk ay kàddu Kalidou muy xamle naan dama bëgg adopté nu mu gën a gaawee sa boobee championnat bu bu nu jugee si stade dañuy jubali si yéen kaay groupe Futurs Médias ñu gën ko xam si record moom record mi nag mi ngi fesal waa Chelsea tey gannaaw bi xamee ni Chelsea dafa am match amical ba tey Sadio Mané mii nag mën waa Bayern na moom tamit ba tey xamee ni Bayern na gii dafa dafa am match amical tey si mercredi bi ba tey journal bi mi ngi fësal l'international polonais bi ñu gën xamee si Lewandowski ñu naan ko Lewa gannaaw mi nga xamee FC Barcelone googee contrat ñeenti at la signé xaalis bi nga xam ne tegu na si boobule contrat nga xam ni Bayern na ak FC Barcelone moom nañu d'accord tollu na si 45 millions d'euros teg na 5 bonus yoo xam ne dañ si war a teg record dañuy dem suñu làmb suñu làmb nag ñoo ngi fay fekk ay kàddu Abass Fall Abass Fall mii nag mooy président écurie moom mi nga xam ne naan Gris Bordeaux ak Tapha Gueye benn problème amul seen diggante ba tey Abass Fall mi mi nga xam ne naan nun duñu si booru benn mbër ba tey Abass Fall ay kàddoom si journal bi mi nga xam ne naan da ngay nekk ci biir wala nga génn si bit mais place bi nga xam ne choisir nañ ko pour entraînement fa foofee dirigeant écurie Fass yi ñoo ko choisir suñu làmb dañuy jubale réew mi quotidien réew mi quotidien nag moom mi ngi fesal sa xat yu njëkkee l'international ivoirien bi ñu gën ko xam si Sébastien moom Sébastien mi nag ñaar fukki at ak juróom-ñett dong la am moom Sébastien mi ba tey gannaaw bi nga xam ne saison bii ñu ñëw mi ngi engagé wu si Borussia Dortmund journal mi ngi ñuy xamal ni dafa am cancer de testicule ñu ko siy souhaité bon rétablissement bi ñuy wax Mundo Deportivo fekk fa am mi ngi fesal l'international ñu gën ko xam si moom Lewandowski mi nag mi am foo fees FC Barcelone naan dama fi ñëw pour jël ay trophée comme ni ma ko daan jëfee ci yeneen équipe ba tey journal mi ngi ñu xamal ni kii di Lewandowski ay visite médicale am jaar na yoon tey jii nañ ko war a présenté foo fees sa Miami nekk foo fees sa Californie foo fees sa États-Unis nga xam ne waa FC Barcelone fa la ñuy préparé seen saison ba tey bi ñoo ngi fay fekk espagnol bi ñu gën ko xamee ci Asier Martinez moom mii nag la gannaaw ne moo jël troisième place moo gàddu médaille de bronze boobee di am sa mondial di am li des foofee sa bitim réew ak journal bi di wax Mundo Deportivo nga xam ne ñaari journaux tey la jox gannaaw bi nga xamee ni moom mi ngi fesal l'international polonais bi ñu gën ko xamee si Lewandowski journal bi nag mi ngi ñu xamal kii di Lewandowski officialisé nañu contrat ba moom Lewandowski mii nag signé na FC Barcelone ñeenti at ñeenti at yoo xam ne xaalis bi nga xam ne moo nekk sa boobee contrat nga xam ne waa Bayern na gii ak waa FC Barcelone loolu nañu d'accord 45 millions d'euros la toll tegal nañ ko si yoo xam ni bonus la ñu ko suy souhaité bonne chance. foo sa bitim réew ak journal bi ñuy wax aas moom mi nga fësal gannaaw bi nga xamee ne mi ngi fësal naan xelit xalaat yëpp nga foofee sa Angleterre gannaaw bi nga xamee ne Espagne war na si jàkkaarloog Angleterre sa coupe d'Europe jigéen ñoo ñee di am foofee sa Angleterre Espagne ak Angleterre wute parce que booy xool Angleterre gardien de but am dugalu ko benn but attaquam dugal na fukki bi ak ñeent Espagne gii nag attaquam juróomi bii dong la dugal mais nag journal mi ngi ñuy xamal ne kii di Espagne na compter si joueuse internationale am bii di Aitana moom Aitana gi nekk si club bu ñuy wax FC Barcelone moom joueuse bi jot na nekk l'homme du match yoon ba tey journal ngi fësal naan kookoy anglaise gannaaw bi nga xamee ni war na participer si tournoi boobee bu mag boobee di am ànd fekk waa FC Barcelone ak waa Juventus de Turin ak ñooñu ñu leen di jaajëfal di leen wax ni bu leen fàtte abonné ba beneen ak yeneen i revue de presse jaa ngeen jëf